seen site Dakar Matin moo leen di seen revue de presse ak Pape Alé tàmbale yër yéenekaay yi ak jëf ju ñaaw ji ñaaw na lool ba tax sénégalais yëpp ñoo sëngeem jooy la xew ca Tëngéej démb yéenekaay bi du l'Observateur ne lii lii jéggi na dayoo jéggi na dayoo nag te fuñ ko natt nag weesu na ko lool xale bi ñu leen wax ne dafa réer Serigne fàllu Diop bu am ñaari at ak genn wàll démb gis nañ ko mu faatu ñu dugal ko ci saagu nilon ba pare nag sànni ko fenn weñ di ko biiw ñu ngi gis nag saako boobu boobule ci benn tool waaye ba ñu génnee yaram wi dañ ci gis ay rëdd rëddu këriñ yéenekaay bi du l'observateur laaj pàppaay xale boobu ñu faat ak it ci tool bi ki moom tool bi ba mu ko gisee ñooñu la ñu wax dafa daw yaram jéggi na dayo lool métti ci xolit ba tax te ngay démb tàng na lool meroon nañu lool loolu yéenekaay bi di enquête waax Vox Populi ne askan wi yeewoo guy murit ñoom ñëpp ñoo wàcc ci mbedd mi ne lii dafiy dàkk fi nekk nekk ni nag lu ëpp tuuru janoog policiers yi lacrymogènes yi jolli xeer yi jolli ndax nag mer nañu lool génn Fallou Diop di xale bu am ñaari at bañ ko gisee ñu wat bopp bi jaaxal na lool nit ñi yéenekaay bi di laas ne xanaa day yokku rek ndax nag senegal jamono yii liñ fi gis jéggi na doyo lool ay xale yu ndaw a ndaw ñu leen di sàcc di leen faat mu jommal ñu baree bare baree baree baree bari te nguur gi nag na ci miig miikaaral looloo jaaxal ñépp ñaari sénégalais yu faatu sa Espagne yéen kaay bi Le Quotidien na Macky Sall nee na faaw ñu xam lu xew ci mbir moom yéen kaay bi L'Observateur ne autopsie wane na na Ousseynou mbay dañ ko sànni dara ci bopp bi moom hémorragie cérébrale looloo ko faat kii di ma mbay Ndiaye moom ci boppam arrêt cardiaque la am enquête na waaye lu tax Espagne sénégalais yi di fa faatu rek Tafsir Dia na liy dëgg ba nekk dëgg moo di loi ba nekk ca Espagne ngir étranger yi du yombalul benn yoon seen intégration foofu la ca Espagne Ali Tandia ne lu soxal sunu état yi du politique migratoire bu baax déedéet ñoom koppar rek. koppar rek bu Espagne di joxe koppar tamit ñu fay faat ay sénégalais seen yoon newu ci présidentielle 2019 Macky Sall ko neex la nar a def waxoon nañ ko fi mu nekk nii yéen kay bilaas ne mbas na opposition bi dafa bëgg modifier constitution bi ak code électoral bi yéen kay bi la quotidien na si naka Macky Sall ci boppam nee na d'accord na parrainage bi nga xam ne opposition bi yëpp ñoo ko bañ ca conseil des ministres démb génne na ñaari projet de révision bu constitution ak bu code électoral ngir ñu jëmmal li nga xam ne moo di pare parrainage jëmale ko ci élection présidentielle yi ku bëgg doon candidat dangay am ci juróom-ñaari raison 1 pour cent ci ñi bindu léegi nag ñu dëgg mu xool opposition bi nan la koy tontoo Vox Populi na présidentielle yi est ndaw ñi duñ ci am doole lool Moussa Diaw ne ci dëgg-dëgg nag ndaw ñi jamono yi ñoo yor débat politique bi Mbacké Seck ci réew mi ne population Sénégal ay xale moo ci ëpp kon kay xale yi mun doon doon ay spectateur ci li nga xam ne moo di langue politique yi Mohamed Massaly ne directoire campagne yi war na bëri ndaw lool Seydou Gueye ne président dina jàngat mbir moomule benn ndaw gi ni da leen waaj a fippu waaye delluwaat naa ci rang yi muy kan mbay Dione ci biir yéen kay bi l'observateur ne gongo Moustapha Niasse fi mu nekk nii delloowaat na heure ba fa mu war a nekk Idrissa Seck ba tey ji ma ngay continuer ca liggéey ci wàllu organisation bi waaye nee na CMU <laughs> du dara teer moom lam fa wax sax dafa gi dayoo scandale yi nar na rythme campagne bi yëral yéenekaay bi Les Échos ne ndikite yoo total 2,7 milliards rek la jox Sénégal ngir jël offshore profond bu Rufisque daanaka ci 1000 kilomètres carrés 265 millions la ci jox ca Mauritanie Exxon ci 1000 kilomètres carrés mi ngi fay un milliard de francs CFA méngale leen ngeen xam scandale yi bu jeexee Macky jàkkaarloog syndicat yi ndax Abdou Faty te ji weddi na Serigne Mbaye Thiam na lu mu wax ci indemnité tey dara du ci dëgg jërë ngeen jëf ñu dëj am nga incha